en démocratie avec l'élection avec la démocratie waratuñu woon am coow warul am révolution boo gisee ñu indi élection sax bañ révolution am moo tax mm-hmm. c'est Gambetta moo doon wax avec l'élection il n'y a de révolution à tenter bien parce que l'élection oui, c'est le moyen bu ñuy jox askan bi ne leen mm-hmm. tànn leen ki ñuy tànn dafay ñëw teg programme ne leen man maa leen bëgg a jiite am naa programme fii laa leen bëgg a jëme ñu ne ko léegi ak démocratie démocratie day dox avant démocratie dañ naan séparation des pouvoirs après ñu ne démocratie day accepter délibération nit di di wax seen opinion. Mhm. yow mën nga contre président wax lu la neex mën nga ànd ak moom wax lu la neex journaliste kenn waru ko inquiéter un intellectuel waru ko intellectuel un opposant waru ko inquiéter ku nekk na nga war a wax sa kaddu loolu moo lay wax la moom la ñuy wax la démocratie délibérative. Mhm. am la démocratie participative na nga nar a participer. mën nga créer sa mouvement. mën nga def mbir engagement politique mën nga inscrire sur les listes électorales mën nga abstenir ne man du ma voter. sans engagement choisir de ne pas choisir c'est un engagement il y a des gens qui s'engagent à ne pas s'engager. Mm. loolu yëpp ñu toléré ko si démocratie donc waru noonu am problème pour lan ñu am problème léegi bu muy indi ay nit yu dee indi ay agression di ay violence di si ay emprisonnement lu nekk ba nu mbambanu fépp ci àddina dem na ma noonu xool. Euh, chaîne yi ci télévision Sénégal Sénégal gën a métti mooy mbamb gi mbamb mi ne man cest à man dama ne mais man dama jaaxle xaw moon ne ay Chine ay Japon ñooñu dañ toog sax ba seen xel di dem si ñun mais ah mais ils ont leurs intérêts aussi dans ce pays. moo tax doo xalaat na nga naan Sénégal am na élection ñii am na leneen ñuy wax ñun suñuy mbir. seen intérêt tax ñu di ko wax. mais monde yëpp di wax monde bi yëpp di wax pourquoi en même temps attention Sénégal quand même on a une bonne image. quand même. moi a deux événements. tu sais euh, Sénégal bi muy joué France dama fa fekke bi muy dóor France ma gis algériens yi européens yi et même yenn français yi di génn di tàccu di jubilé naan je suis content que le Sénégal ait battu la France mm-hmm. français yi seen bopp sama benn xarit bu nekk États-Unis ne ma moom bi mu génnee si benn restaurant bi mu nekkoon noonu ay américain naan ko we are so proud for you yi daf fier nañ si yéen tout ça foo ko gis si monde bi moom laa doon wax temps yële si benn télé ma ne leen Sénégal am na loo xam ne yàlla may na ko du pense que pas que suñu alal la wala suñ benn mën wala daal mais dafa am benn genre bayre mu nu am ci monde bi. Rallye Paris Dakar y a des choses des orchestres avant qui ont fait le tour am nañ benn bayre bu nu am ci monde ba am na nit loo xam ne yéene nañ ñu ko am na yërmande bu nu am ci ñun am na yéene bu nu am ci ñun am na respect bu nu am ci ñun koo dégg bi wax dana mais Sénégal mais yéen mosu leen am problème yéen yaa doon vitrine bi pour lan ngeen am problème et on arrive au problème. Et moi, chaque fois, je dis aux gens, on peut tourner autour du pot, situer les responsabilités. Mais moi, je veux chaque fois dire que dans une république, y a un responsable. y a un commandant en chef. y a un chef d'état-major général au-dessus des chefs d'état-major généraux qui est le président de la République. La clé de voûte des institutions, c'est le principal acteur, mooy désigné celui qui nomme à la haute fonction, différentes fonctions publiques. Mm. bu nu koy décider. lépp moo koy mm-hmm. kooku. kooku am responsabilité am c'est une responsabilité fondamentale waxuma ne responsable il l'a pas incarné ou pas mais déjà il faut qu'on reconnaisse que moom s'il y a de l'ordre s'il y a du désordre s'il y a de la discipline s'il y a de l'indiscipline lu mënti am quelque part moom il a toutes les instructions il a toutes les cartes en main hmm. mooy principal euh, pourquoi je puis problème alors qu'il aurait dû être une solution parce qu'il a posé un certain nombre yoo xam ne ça ne va le sens d'un renforcement de la démocratie